bismillahi tawat gi nu dal war war yi wër nu fu ne diis nan ko bam ba mi xëy baddil sëriñ mbegere bànkak tawat gi nu dal war war yi wër nu fu diis nan ko bam ba mi xëy baddil sëriñ mbegere qiinal tawal dajalal ruujal jigal saxalal déqil tegóob jirijal nu jombu nga segere dugub njëgu ceeb addiya ak dimbale moo tënk xel yi fegal ni dëkk bi dëgëre raasaatu nan fu ne yëf fuñ fëgg foofa ni kekk tabbil teral nu ci saga suñ lépp ngi sagare tiit ak rëtëg jaxasoog bekkoor tawad yabu la ki tax sa doom yi di jooy kaay wan ko say degere yaa bari ci it tiju far ya mën ci soxu la ku ne kootin mu mujj ci ba am mayum jëgër jëgëre yaqoolu wartinu naxa su njool mi doy nga nu raas yaa jot ca kursi yu jot waras manuy sigare ajjil nu gam mi ngërëm duy sàq yeeg jiba yi naataa ngi dil si fi ñun barkeb sëriñ mbegere naataa ngi dil si fi ñun barkeb sëriñ mbegere